marhaban ay maire yu président Macky Sall di rompi ci biir kujje gi moom la mboolem yéen i kaay xëy yéeni ki tey jilee critique yéen i kaay nañu daat nañuy foqorti ay mandat rax dolli itam ñuy jaay ay écharpe municipale jëmale ko ci ay maire yu ñu daal di tabb ci l'opposition bi tey dem fekk si waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu sukkandikoo ci yéen i kaay bi bëgg-bëgg ak tànneefu askan wi la ñu daal di salfaañe ci ay mbirum intérêt cote ay mandat yu ñuy jaay ci bu waxaale loolee lu ñu ñaawlu la ci géewu politique gi bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yuy xamle ni ab entreprise bu jéggi dayo jëmale ko ci wàllum transhumance moom la ñu nemmeeku jamono jile tembe ci ab laboratoire wu palais de la république tribune yéeni kaay ci fànnam di xamle ni président Macky Sall ci dëgg-dëgg nag daal dina ñàkk lool inspiration ndaxte moom mi taxawoon temm doon xeex wàllum transhumance bi mu nekkee woon ci kuje gi te jàppoon ni sax ab cancer la tey jii moom président Macky Sall ci boppam moo dellu soit di defal promotion jëf ju ñaaw ju ni mel loolee waral suñu naataango tribune fu mu toll nii tembe géew politique yi fii ci Sénégal lenn rek moo ci gën a fës moo di warante gi di maanaam trahison ak wàccu benn noppi daal di lekkaat l'info yéen kaay ne président Macky Sall léegi moom nëbbatul lenn ci doxalinam mu ngi gën a defaraat taxawaayu kuréelam di ngir fexe bay am ndam ci élection législative yu ñuy dëgmal ginnaaw bi mu amee ay jafe-jafe ci Ndakaaru Thiès ak ci yeneen fii ci Sénégal ci élection locale yu ñuy weesu ñàkkum kérosène di essence bi roplaan di itteewu daa dina fës itam ci xëtu yenn kaay yi Vox Populi nañu naam sax mbir mi daal nañ ci nemmeeku ab jaxasoo waaye ñàkkum kérosène amagut ci réew mi lu ni mel nag suñu naataango yi ñu ngi koy xamle ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu yu rote ci jëwriñ bu ñu dënk wàllum pétrole ak yëngu ci wàllum industrie ak wàllum pétrole moom Sophie Gladima daal dinay weddi di maanaam écarté lépp lu jëm ci ñàkkum kérosène googee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass laata muy dalal xel ya di xamle ni lépp dina delluwaat à la normale ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum avril ndaxte ci la ñuy séentu ab cargaison bi fas yéene yegsi ci réew mi Walf Fadjri quotidien nañu lenn waralul coow li lu dul ab jàmmaarloo mi dox ci diggante nguuru Sénégal professionnel u industrie bu pétrole ci ni ñuy war a fexe bi aéroport international Blaise Diagne bu Diass mën a am kérosène bu doya société de manutention de carburant aviation SMCAD yi seen i bataaxal mi ñuy génne te artu di wax ni kérosène amut ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass loole nag daar nay mer loo lool joriñ bu ñu dénk wàllum pétrole ak wàllum énergie Sophie Gladima waral yéene kayu enquête sampu blaaj ne ndaxam bii les sociétés dafa yàkkamti woon lool ba ci paatuk astu soxna ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga yéeni kaay le quotidien nañu ñeent ci juróom benn ci ay sage femme daal dinañ leen teg loxo ba démb daal dinañuy fanaan seen guddi gu njëkk ci biir kaso bi juróom benn yëpp des leen atte ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum avril bi ñuy dëg ma la lu ni mel moo waral yéeni kaay laas nañu machine judiciaire bi daal fu mu toll nii daal dinay tàmbali dox l'observateur ak sud quotidien ñoom di xamle ni ñetti fanu grève la ay syndicat yuy yëngu ci wàllum paj mi fas yéene amal ko ci àllarba gi lépp luy wàllum ci Sénégal des gàllankooral ak ay grève yéeni kaay l'observateur moo ni artu te fas yéene wuñ ci yem ndaxte dinañu gedd di maanaam boycotté lépp lu jëm ci wàllum formation ak supervision ba sax ci ay ndaje di maanaam ay réunion de coordination ak itam fexe ba tey ay xibaar di maanaam la rétention des informations sanitaires et sociales fii lekk njeexitalu grève ba jaa ngeen